Marc Tendeng maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay sant bu baax nga nekk secrétaire général bu Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk récemment ngeen def benn communiqué di dénoncer euh, ni ñu supprimer yenn ligne yu Dakar Dem Dikk yi ndax BRT bi est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci problème boobu. waaw dañu yeewu am ñaxte ñu xëy rek amuñu benn information gis nañu supprimer suñu ligne yu bëri. donc mu ne njeexital boo xam ne am na ci clients yi xam ne day utiliser Dakar Dem Dikk nekk ci banlieue bi ak fépp fu Dakar Dem Dikk nekk ci Dakar te li ñuy supprimer dafa jéggi dayu euh, nga xam ne moom mooy doxal mbirum transport bi te état dégg ko ko mu war a yemale acteurs yëpp mais daanaka euh, yemalewul dañu gis ne BRT moom bu jee juddu fekk fi Dakar Dem Dikk am ci ay ati ati at at ñaari fukki at ak ak ak ñeent di doxal transport bi ñu xëy bëgg ba ay supprimer moom pour mën a ñoŋal BRT bi ndax BRT bi booy xool Euh, soixante dix pour cent ci ñi ko moom ay français lañ nga bëgg yow privilégié ñooñu bàyyi mu Sénégal donc moo tax ñu ne loolu dañ koy ñaawlu ndax surtout loolu du weru garam ndax BRT bi surtout waru ko sax piloté parce que mooy maître d'ouvrage bi te loolu du yoon te te daf ko doon tëddee yemale acteur transport yëpp gunge leen taataat leen tàggat leen dimbali leen ñu mën a continuer à respecter le cahier de charge bi nga xam ne moom la état lëkkaloo ak ñoom. mais tey bu ñu gisee li CETUD def mooy ne dafa bëgg a rey dem rek parce que tey jii ni mu supprimer suñu leen noonu la bàyyi aftu di daw noonu la bàyyi clando di daw ak ñeneen mu ñëwal Dakar yi nag supprimer ay liggéeyam te loolu mi ngi koy def ànd ci ak direction générale bu Dakar ne dañuy cuune dëkk bi fi nekk cuune boo xamante ne ak délégation bi tam waxtaan si léegi mënuñu convaincre surtout ba surtout am ndam seen dafa newoon BRT bi ñoo dolleeku ci li fi nekk ci transport te état moom ko waaye nag ñëwul pour dogguli ñeneen ñi nga xam ne nekk na wala pour supprimer ay ligne Dakar mais dafa ñëw pour ñu ñoŋalaat xoolaat ñu ngi defaree secteur transport ba ku ci nekk mën a juyee sa wàll jii li ñu gis daal mooy ne format lañ gis ngi supprimer ay ligne te ligne boo supprimer Dakar yaa yaa ngi xañ ay sénégalais pour de déplacement parce que li xew ci BRT bu sénégalais fa mu ci mën a fay da ngay dox diggante bu ndaw arek ada ñu ne la quatre cent franc arek ada ñu ne la téeméer donc sénégalais mun ñu fi dëkk donc sénégalais li xaj seen poche mooy fanweer euh, deux cent bu ñu fay ci Dakar dem dikk ñaar fukk ñu fay ci Dakar dem dikk donc Dakar yi mënu fi nekk at yooyu yëpp ki bees ki ñëw rek ñu bëgg a jël kooku teg ko si kaw ñëpp xalal ab yoon pour yow kese loolu doyut ñu ne ko kenn du la jege loolu fu mu loolu moo tax ñu ñaxtu loolu di interpeller le président di interpellé premier ministre Ousmane Sonko ak ministre tutelle El Hadj Malick Ndiaye ñu àddu ci loolu directeur CETUD bu mu jël dogal yi mu jël nii mooy dafa bëgg a ndërmel Dakar dindi ko setaan hmm. te moom ñu ngi demandé ça à euh, mi ngi mel ni ab transporteur la parce que ñoom seen bopp ñoom directeur bi ak ay ñoñom dañu am wàll ci aftu yi moo chaque fois fu ñuy liñ Dakar dem ñu indi liñ aftu teg ci kawam pour ñu concurrence loolu doyut ñu jëlaat BRT teg ko suñu kaw di supprimer suñuy ligne loolu teguñu ko fenn loolu la xeex te loolu nañ ko xeex ba am ci satisfaction hmm. ba état amené ne ñun ñëpp ñoo mu jël a kese loolu yaa ngi ne sénégalais dama leen di ngeen jëm ak ñoon ñu dul jëm yan yan ligne la ñu supprimer exactement. marque lignes yi bëri na ay lignes yu nekk maanaam daanaka quatorze lignes la boo ko jëlee ay cinq ak six bëri nañ lignes yi daal mënuma ci ligne yëpp mais daanaka quatorze lignes yoo xam ne ñu ngi ko supprimer a seet pour mën euh, bi def liggéeyam normal te BRT boobu euh, mënul dëkkul problème transport sénégalais parce que ñi ko fi jiitu ñu ngi si ba léegi dañuy continuer seen liggéey. Euh, kon euh, suppression wu ligne yooyu daf leen indil problème wala. daf ñuy indil problème mu rendement daf ñu indil problème kopp daf ñu indil problème boo xam ne mooy la ñu lëkkaloog état mooy cahier de charge bi ñu signé ak moom ak convention yi duñ ko mën ci respecté te ligne boo supprimer yaa ngi xañ sénégalais bi emploi c'est des emplois qui sont menacés koppar la bi nga xam ne ci dafa entreprise bi nga xam ne dina ko permettre mu mën a continuer à donner service public donc loolu la ñuy ñaanu ñoom Mm. Euh, temps yee si ginnaaw gis na gisoon nañ leen ngeen amaloon ay mouvement d'humeur euh, lan moo ko waraloon exactement. waaw mouvement d'humeur yooyu dafa amoon ay comportement yoo xam ne gestion yoo xam ne Ousmane Sylla mi fi nekk di tegoon na ci kaw Dakar teg ko ci kaw plan mooy ay acte de xam ne war nañu taxawal kaa yi ba ministre bi mu fekk suñu moo tax te jël nañu dogal remplacé ko indi ñu keneen mais nag ku bees ki ñu koy xaar ndax boobu ba léegi ñu ngi koy xaar daanaka weer moom def passation service ndax li taxoon ñuy grève mi ngi fi ba léegi comportement yi ndax waaye comme gisagul ko ko remplacer ñu ngi ko def ñu koy def te loolu taxoon na ba ñu gaari ay kàddu ministre bi ñëw donc ñu ngi ñaax ministre bi loolu ñu gaaw ci passation bi ni mu gën a gaawee mais aussi bi ñu ñëwee ni ñu waxante woon ak moom mu sas bi directeur bu bees bi mu daal di éliminer lépp li nga xam ne moo indi woon frustration bi ñu taxawal ay kaar yi ndax ñu continuer liggéey Sénégalais yi am jàmm à travers Dakar am jàmm Dakar yi ñu continuer def waaw Marc aussi euh, est-ce que li ngeen li ñuy wax ni wàllum renouvellement parc automobile est-ce que ba léegi yéen a ngi koy laaj parce que gis nañ avant juste président Sall di dem euh, dalal na euh, oto Dakar dem dikk yu baree bari yu bees. waaw gis nañ leen ñuy circuler aussi mm. côté boobu moom côté boobu xam nga état daf ñu diggoon mille quatre cent véhicules waaye daanaka liñ ci jot am na juróom weer ci ginnaaw daanaka trois cent soixante dix véhicules ba léegi. liñ ci soxla pour mën a ñoŋal mbirum transport bi fii ci Dakar ak Sénégal day weesu lim boobu waaye nag jot nañ ko am na lu mu indi soulagement ci sénégalais yi waaye doyut ñu ngi xaar daal lu ci des état jox ñu ko ndax ci lim ñu jox trois cent dix la yoo xam ne urbain lañ ko utilisé ak soixante dix bi te fii xam nga loolu indi ci oto moom daanaka doyut waaye nag ñu ngi xaar rek euh, gouvernement bu bees bi ak équipe bu bees bi xëy na ñoom nañ continuer contrat boobu ba jot lu ci des pour ñu ñoŋal service public est-ce que est que Dakar euh, Sénégal Dem Dikk rentable na. Sénégal Dem Dikk mën ñu wax rentabilité bu may wax bi da ngay xool li li ngay jëfandikoo pour doxal oto yi li ngay jëfandikoo pour fay travers ak oto yi lu muy liggéey boo ko méngalee xool ndax am na bénéfice wala amul bénéfice te loolu bu ñu xayma li fi ñu jot am ci ginnaaw yëpp waroo ci gis bénéfice waaye dañu war a fexe liggéey nag ba am bénéfice ba créer revenu additionnel te loolu moo mën a tax entreprise bi suqaliku mais aussi bu soxlee foofar. soxlawul muy xaar état di ko ñaax état pour mu jox ko même dina fexe ba na tax moom mu gérer ay dépenses toll bu ñu foofu te foofu lañ bëgg a toll te euh, ci jàpp mais ñu indil nii xëy na mu am programme boo xam ne pour ñu mën jot loolu. Mhm. est-ce que am ngeen appel bu ngeen di euh, euh, lancer président Diomaye. en tant que syndicaliste waaw li ñu koy wax rek mooy mu gën a gëstu Dakar dem def erreur li mu fi dugal ci alal ak ki mu fi bàyyi na koy bàyyi gëpp di ko bàyyi xel ci gestion bi mais aussi travailleurs yi sonn nañ surtout ci seen mbirum payoor ak yooyu condition de travail mais aussi directeur CETUD bi ñuy ñaan bu ko mënee remplacer lu ma gën a gaaw parce que newul bi joueur yi yéen parce que li muy def nii mooy bëgg rek rey Dakar Dem Dikk bëgg a ñëwal BRT af af te loolu duñu ko nangu donc na gëstu Dakar Dem Dikk balaa muy déggaat beneen mouvement d'humeur boo xam ne yaakaar nañ du ci Sénégal Mmh. Euh, accident yu bëri aussi gis nga ni fan yi bëri na surtout à Dakar en tant que acteur euh, si wàllum dem beeg dikk bi euh, lan ngay suggérer autorités yi pour euh, solution. waaw ñu respecté rek mesures yu ñu ci jëloon parce que ñoom demoon nañ fi am waxtaan bu rëy ak transport ba jël ay dogal ay mesures yoo xam ne ko respecté ànd ministère de l'intérieur yu appliqué ko mais daanaka mesures yooyu ba léegi application bi dafa des moo tax ngeen continuer gis accident yi nañu accentuer sensibilisation bi. le pré un observatoire national des transports moo acteur lépp ñu bokk ci bu defee ñu gën a ñëwal sensibilisation bi sanction yi gën a ndax yenn comportement yi ngi si bi da xam ne indiscipline routière rek moo ko indi ñàkk yar la ci tali yaakaar naa ne dañuy indi ay sanctions yoo xam ne à la hauteur de ces actes qui sont yoo xam ne dañuy indi ay perte de vie humaine nit ñi ci ñàkk seen bakkan ci indiscipline ay ay conducteurs donc yooyu moom foog jël ci dogal yu dëgër renforcer mesures yi te yaakaar ne buñ ci yeggee dina mën a wàññi accident yëpp ba pare ñu a formaat ñu xool aussi naka lañ koy joxee parce que ni ñuy joxee permis aussi dafa jéggi dayoo daanaka fii moom da ngay gis nit toog ci këram sax xaalisam la yor ba ñu jox ko permis te daanaka dawal bi ak formation bi dafa des donc yu bari la yoo xam ne war nañ ci jóg day mën a wàññi accident yooyu. Hmm. jërëjëf Marc Tendeng ñu ngi lay remercier ci disponibilité bi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ñuy fàttali ni euh, Marc Tendeng yow yaay secrétaire général bu union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk jërëjëf Dakar Dem Dikk